mooy Serigne Bassirou mooy tur kon wax na ngeen ko dégg noonu mooy Bassirou Lo di doomi Serigne Moustapha moom Serigne Abdourahmane Lo ak Soxna Astou Mbacké juddoo fu ñuy wax Darou Salaam Kayal biñ tolloo ci jàng alxuraan dañ noo yóbbu woon ci daara yi sëñ sooy bu moom Serigne tubaax foofu lañ dale waaye yàgguñu fa ginnaaw bi ñu yóbbu ñu njaareem kër sëñ Mor Mbaye Cissé sëñ Mor Mbaye Cissé boole woon ak benn jàngalekat ci ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci moom mu doon kooku tudd sëriñ Moustapha Guèye foofu lañ jàngee ba mukkal alxuraan bind ñaari kaamil soog faa jógee ñëw delsi delsiwaat Touba di jàng nag ci ku ñuy wax sëñ Abibu Mbàkke mu doonoon mag moo xam ne bari na ay eh, kilifa yoo xam ne jaar nañ ci moom foofu lañ jàngee nag ba jàng téere yi yëpp yi nga xam ne moom war a jàng fii ci Sénégal soog fii jógee nag dem Arabie Saoudite nekkoon Riyad ci jamaatul imam nu Saoud foofu lañ jàngee génn ci ci faculté bi ñuy wax kulliyatu lughal arabiyya maanaam ñu ngi génn ci faculté boo xam ne foofu la ñuy jàng littérature arabe foofu lañ génnee fa lañ amee licence bañ fa jógee nag ñibbisiwaat Sénégal ci 89 ñu ñëwee Serigne Moutouta yóbbu woon ñu yoroon ba nekk mm-hmm. yàgguñ moom at rek lañ fa def buñ fa yàlla dogal ñu am visa wala dem Amérique comme yàlla dogal na ba ñuy jàng doon dañ doon jéem a góorgóorluwaale tuuti ci anglais ñu delluwaat bañ demee foofu nag ñu doon jéem a jàng itam tuuti ci anglais nekk fa quatre vingt maanaam quatre vingt douze ba quatre vingt quinze ñu jógee fa dellusiwaat Sénégal ñu Sénégal nekk fi ba deux mille un ba deux mille deux mille ñu amaat beneen visa delluwaat bañ demee nag yàgguñ fa ñetti weer rek lañ fa def dellu suwaat nag Sénégal deux mille un ñu demaat bi ñu demaatee nag yàlla dogal tasante kër sëñ Tuubaa nga xam ne moom lañ doon ubbi foofee ci Amérique kër ga sotti sëñ Murtala ubbi ko ci ajuma ju njëkk ji moo jiite ajumay ñaareel ji nag mu ba ñu noddee di ko xaar mu yebal nit ne ko naa dem jiite baax wax ginnaaw boobu bi ñu jullee ba noppi mu woolu sëñ Mamour mi nga xam ne mooy taawam wax ko ne ko nee wax nit ñi ne man la fa bàyyi ngir ma mën a nekk imaam ma nekk fa nag quatre-vingt ba deux mille un ba deux mille treize laa fa jógee soo ko dellusiwaat fii Sénégal macha allah